internet Sénégal ñëwaat na ngir leen bi nga am Lambaye bu 4 heures du matin ba 4 heures du matin ba léegi nag ñu fexe ba fay ko ba fay ko immeuble université virtuelle du Sénégal université virtuelle du Sénégal mi ngi a concentré nañ fi seen temps bu bari bëri consacré nañ fi temps bu bëri yàgg nañ fi lool ngir fay ko waaye gis nañ ni immeuble bi mi ngi nii safara si laal na ko bu baax a baax a baax beneen côté nag ba léegi mi ngi continué di tàkk yeneen côté ñu ngi tàkk ba tey waa tubaab bi ñu ngi nii di yëg si waaw armée française bi tubaab yaa ngi nii di yëg si ngir wàllu si ngir wàllu si tànn bi waa ñu ngi noonu ñu ngi noonu tubaab yaa ngi nii si terbagi terbagi motor bangi oto sapeur boobu ngeen di seen léegi mooy oto tubaab yi oto français yi ñëw nañ ngir wàllu si ndax mbir mi dafa jéggi dayoo ca 4 heures du matin ba tey mi ngi gën di jëf di gën di tàkk mënuñ ci dara sapeur yaa ngi sapeur seen yenn yi ndox mi jeex na ngi yeneen yi waaw mi ngi yeneen yi ñi ngi ci ginnaw di jéem fay wa Pikine nak ñom ñoom ngeen di gis ni wa Pikine ya ngi ni génn di sétane fii nga xam moy parc Lambaye di tak waaw metti lol lol lol lol ci ngone ba ci ci sa fajar ba léegi parc ba ngi tak kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara ndax buñu ñu parc bi ay denk la ay denk manam moy bant yoy nga xamantene ne lu leen taal dafa yomb lol mu doon ay bunt yu bëri mu doon ay armoire mu doon ay meuble léegi ñooñ nag bu ñu jëfee dañuy dem ba foog ne foog ne noppi nañ ñu béjjati bu waat loolu nag moo waral fay lakk bi du yomb moo tax yéen a ngi koy gis bu ngeen xoolee suba ba léegi même constat bi moo fi am yi doon tàkk ñu gën di tàkk yii yii ngay gis ni sapeurs yi ñëwuñu sax taxaw ndax tellement que ñu ngi yeneen point yoo xam ne dañoo gis ne ay point yu am solo la ba tax ne gis ngeen poto bi ni poto bi poto poto poto poto lampe la ngeen poto poto bi maanaam mi ngi tak bay bëgg jeex gis ngeen poto bi gis ngeen li gis ngeen ko ni poto lampe la waye dafa tak tak ba ba danaka dafa lekk ba léegi mu daanu yéen gis ni poto courant bi wa incendie bi nak liko waral ba legi xamaguñ ko ba xamaguñ ni incendie bi liko waral waaw ci bir moom mo ngi tak rek wa sa peur ñu ngi coordonner sen bir gi fexe nuñ ko fayee ñoo ko gisandoo lu metti mii lu metti quatre ba dix heures jot fi toll nii quatre ba dix heures jot fi toll nii waaye ba tey rek constat bi benn la constat bi benn la maanaam yi tàkk ñu ngi gën di tàkk sapeur yéen a ngeen di gis nii ñu ngi jéem seen kéem ngir jéem koo fay lu jafe lool léegi léegi nag gis nañ fi léegi oto sapeur bi nga xamante ne armée française ñoo ko ñoo ko indi fi ngir mu jàpp ci pay bi ndax doon na lu metti lool lool lool lool oto bi nag avancé na ba si kanam waaw yéen a gis nii sapeur yaa ngi avancé di ñëw ñu ngi def lu nekk ngir jëm ko fay waaw sapeur yi ñu ngi jéem ñoo ngi jéem ndax lii mbokk yi day benn wàll bu yoo xam ne fa la mooy fi nekkoon sànq ci biir pour wane ne rek lakk bi maanaam marché bi daf koo wër moo ngi lakkee fu ne yaa ngi def seen kéem kàttan ngir lakk bi dafa metti lakk bee metti gis ngeen noonu ci biir ci biir ba mi ngi yegal di tàkk waaw mi lu metti muy lu metti muy lu metti yéen gis nii ci biir ci biir moo ngi tàkk tàkk yu metti gis ngeen fële lële daal la ay dóom la yéen a ngi koy gis na le biir parc bi ngeen di seen ni daanaka def na ay dóom waaw côté bi yeneen gis ni mu béjjee gën a gën a gën a tàkk bi ñu gën a tàkk si suba léegi nag ñu la mel lakk bi ñu fàttali ne 4 heures du matin la démarré ba tey sapeur yaa ngi def lu ñu mën mënuñu ko sapeur yaa ngi jéem lu ñu mën lu ñu mën sànq ñu ngi fi jàkkoonteeg ay ñi nga xam ne fii leen doon liggéeyee ñu tiis lu ko naqarlu ko ñuy lu métti métti métti bant yi yéen koy gis nii bant yi ñoom ñoo ñoo mucc ci lakk bi bu ko weesoo yéen a gis côté bi ne kon dafay gën a metti dafay gën a metti lakk bi day gën a metti jigéen sabara saa ñu mën ci sàpp ñu ci jéem ndax na nag circulation bi tamit duñ ko fàtte mu ndax fiñ toll nii pour nga jóge Tëngéej jëm dakaar lu metti métti métti la ndax voie bi dañ ko arrêté dañoo obligé di jaar ci beneen sens inverse bi ngir nit ñi mën a dem sapeur ñoom ñoo ngi ñëw rek ñoo ngi ñëw rek ba tey mënuñ ci doole mënuñ ci dara mënuñ ci dara ñeneen ñëpp ñu ngi def ay jéego ngir fay ko ñeneen ñi ngi def ay jéego ngir fay ko waaw si ngeen ci biir fii suba léegi ñuy demee na lakk bi 4 heures du matin la démarré am na ñu naan am na ñu fi jàkkoore ne lu ne ñàkk nañ ko lu ne lu ne tàngoor ci biir waaw lakk baa ngi nii sapeur yaa ngi moom

lu ne ak ku nekk rek ni ngi fa ngir dëggal leen ngir xamal leen tamit ci kër waaw ak baa ngi métti lool sax البرتقالي ماشي لورنر انا الجبري لا في تاي انا الجبري يعني ناجل سن fii ci fii la xewee nag ci Pikine parc Lambaye di parc boo xam ne nag du gulet muy lakk du gulet muy lakk ndax diir bu matul ñetti weer sax lakkoon na fi waaye lakk bu ni mel nag ah sunu xam-xam bu gàtt gisaguñ ko ndaxte expliqué nañ fi tamit ay problème yi nga xam ne dañ koy am ngir am accès ci biir marché bi ruq yi dafa xat marché bi nu mu dafa dafa ay yoon yu xat yu bëri ci nekk waaw ñu ngi nii sapeur yaa ngi ko daanaka fii fay nañ ko waaye si biir mi ngi gën di tàkk rek looloo gën a yëm nit ñi ndax fii nii ñu jàkkaaroon sapeur yi fay nañ ko doon na tàkk tàkk gu métti sànq waaye xool leen ci biir mbokk yi ci biir a ngi gën a tàkk ci biir a ngi gën a tàkk yéen a koy gis noonu seen site Sénégal dina wan ni fi xewee depuis ca fajar ba tey dara du len ci te dina ci ñew ak yeen en vidéo mu gëna a leer mu gën leen ko yaatal waaye yéen a koy gis ni mi ngi làkk rek mi ngi làkk rek sapeur yaa ngi coordonné Thank you lii lépp doom la léegi lépp doon na doom lépp da day gën di tàkk rek day gën di tàkk côté boo fi jël rek mu ngi tàkk biir bi ay la la ne sapeur pompier dafa melni sen seen pexe dafa jeex ndax ñen ñangi taxaw di sétan wa mi lakk gu am doole te lakk gu metti wa pikin yaangi ni genn génn ngi len di gis wa pikin yi genn na ndeysaan ñu bari ñak nañ ci tay lu bari way alal ju bari yàqu na fi wa pikin yaangi ni nii waaw yéen a ngi koy gis nii lii ngeen di seen nii ci biir la lii ngeen di seen nii ci biir la waaw gis ngeen ko ci biir marché bi la ci biir la ci biir moom lakk gu metti lay lakk moo tax njort nañ ni daal lu ko fay du yomb waaw lu ko fay du yomb ndax lakk bi ci biir gisaguñ sax ku jëf jéego ba dugg ci biir ngir jéem ko fay mi ngi noonu nag nii la waa Pikine yeewoo tey nii la waa parti Lambaye yeewoo dañ cey néew doole lool lool lool ñu lu metti ñu lu metti la koy fi ci Pikine ci parc lambay bi 4 heures du matin ba tay parc ba ngi lakk lakk du metti lakk du metti ah, hein il faut ñu wax ko waaw Palestina lool beling yang yang? sapeur Siri. Sini!

Il parle, monsieur Dia, là c'est bon. Non, non, non, c'est que lui, il y a Mami, bir limon. Kahve eksik kaldı vur. Thank you. Lisi, hold on a minute. And it's not this. What about you? Okay. This one. Allah ka jox am. Bañ pare. waaw léegi yéen xoolal nekk leen si aile bi rek ngeen bàyyi am ci baax c'est bon on peut y aller on peut y aller les caméras les caméras d'abord les caméras attendez que les caméras sont ah c'est bon c'est bon gars yi caméraman baax na ñu dem attendez attendez un instant ils vont donner top départ dans 15 secondes on part ah. caméraman boo leen paree ngeen wax ñu. Majo c'est bon. c'est bon gars yi. yaa ngi am son ah. oui d'abord. Baissez vos micros s'il vous plaît, baissez vos micros. Les micros en Monsieur Dia, donc depuis ce matin, nous avons constaté une coupure d'électricité au niveau de Dakar, euh, Quelle est la situation actuelle et pourquoi également euh, cette euh, Je vous remercie de nous donner à a ce matin, vers 6h du matin. À l'heure où je les, abonnés sont exprimés. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons

aucune installation. Les zones 16 mètres à gauche et 16 mètres à droite doivent être libres. cela a été constaté par un décret. Et donc, malheureusement, on a constaté que les personnes des Sénégalais ont construit ce site, font des activités industrielles, artisanales, qui menacent nos ouvrages. Dans la nuit, un incendie s'est déclaré. Et ce sont ces flammes qui sont montées, brûlées les fils, et nous avons perdu les quatre lignes. Donc c'est donc une zone à problème pour la Sénélec. Depuis toujours, c'est la troisième fois que ça se passe. La dernière fois c'était en 2010, nous avions fait un reportage avec les télévisions de la même façon. Nous avions appelé à faire des Aujourd'hui c'est un problème très sérieux. Parce que c'est ici que se passe le transfert de l'électricité. C'est un couloir, on appelle ça un couloir. Et les couloirs doivent être libres de toute occupation. D'abord pour que nous puissions faire notre travail de maintenance, mais aussi pour la sécurité des personnes. Vous voyez ces fils qui sont tombés. S'ils étaient tombés sous tension sur des personnes, on aurait fallu des dizaines, voire des centaines de morts. Et aujourd'hui, notre système électrique est menacé Voilà, la plusieurs années. Donc les Sénégalais le Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez perdu ici, Dakar ne risque pas d'avoir des problèmes de, de fluidité d'électricité Avec ce que nous avons perdu, il y a une grande quantité de consommateurs privé d'électricité si nous n'arrivons pas à réparer d'ici la nuit. Et réparer d'ici la nuit, il faut d'abord que l'incendie soit éteint pour nos équipes puissent tirer les vies, réparer ce qui est réparable, récupérer une partie des quatre lignes. Aujourd'hui, vous avez quatre lignes qui sont par terre. Donc une troisième récidive aussi au niveau de la zone, comme vous l'avez dit, par rapport à ces incendies. Quelles sont maintenant les mesures que vous comptez prendre par rapport à la des définitive de ces L'État a donné des instructions euh, ce problème des servitudes, on appelle ça des servitudes, avec le fait que les lignes traversent des zones, que ces zones soient régies par des protocoles Donc l'État avec des institutions pour ces servitudes et que le travail était en place, le préfet, le gouverneur, les autorités avaient pris beaucoup de moyens, mais à chaque fois que les personnes sont déguerpies, elles reviennent. Et à chaque fois qu'on touche à ces personnes, c'est depuis tout le monde s'émeut. Mais il y va de la sécurité, d'abord la proportion. Et ensuite, il y va de l'approvisionnement en électricité de nos quartiers. Vous voyez, aujourd'hui, ça dispose d'une capacité de plus de 800 MW. Yeah. Notre demande est à 500. Nous avons donc 300 MW qui sont là, qui ne peuvent pas servir. Parce que les évacuations sont indisponibles. Dans certains pays, il manque de production. Ici, nous avons réglé la question de la production nous sommes en train de faire beaucoup d'ouvrages de réseaux de transport. Nous n'avons pas terminé. Et si on vient détruire le peu que nous avons, ça va encore prendre. Mais il va de la conscience collective. Parce que le pouvoir de peut faire dans des mesures, mais si la population de bien, il faut qu'elle pense d'abord à la Voilà ce que je veux dire. C'est une situation assez préoccupante. Pour le réseau électrique, pour le moment, nous maîtrisons. C'est le soir, nous ferons le point pour pouvoir se réparer. Euh, vous avez vu tout à l'heure le général qui commande le

consommateur. Obéit à des règles. Vous ne pouvez pas consommer le si vous n'avez pas un abonnement régulier de la salle. Et pour être un abonnement régulier, vous devez faire une installation intégrée qui répond aux normes et qui est approuvée par le dispose désormais une réglementation en matière d'installation électrique de la société électrique qui va bientôt démarrer le développement de prix. Que toutes les installations sont plus conformes. Mais avant ce sont les citoyens eux-mêmes qui doivent soucier de leur sécurité. On ah, ne pas acheter du matériel euh, de mauvaise qualité, mais surtout de passer par la scène pour avoir un abonnement régulier. Ce qui se passe là, c'est simplement dû, simplement un incendie. C'est au début dans tous les cas, ce qu'on veut en premier lieu, ce sont les services qui sont livrés. C'est ce que vous pouvez retrouver ici. Et on est ici dans la circulation, il y a des gens qui sont en danger. Le trafic est bougé et aujourd'hui, ça n'allait l'air que de satisfaction consciente. Utiliser des outils qui sont beaucoup plus chers et donc on est en train de dépenser tout l'argent alors qu'on a des machines qui sont à la Bonjour. Voilà. kooku nag moo fi teewal euh, Senelec doon indi ay précision rek ci lakk gi ñoom ndax boo xoolee yéen a ngi seen mën a fii ci kaw waaw gis ngeen ko ñoom tamit am nañ ay yàqule yu am solo yuñ ci am am nañ yu am solo yuñ ci am ndax ñoo ngi ñu ngi leen di wan léegi seen benn poto boo xam ne maanaam dafa tàkk-tàkk yu métti moom nag xam nañ nañu ne jamono bi jafe-jafe courant dina am ci bërëb yu bëri bërëb yu bëri dinañ ñàkk courant ndax li moko waral rawati na nak ñi nga xamne dañu jégué fi di parc lambay bi nek fi ci pikine waaw ñoo ngi nii da yaa ngi avancé ñu bu bagage yi ngir fay ko la ñu def seen kéem kàttan ngir fay ko ndax bant yi ñu teg na tamit dañoo commencé jàpp ñu ngi commencé jàpp jigéen ñi ñu ngi ñu leen di fay bi sapeur pompier ñoom seen liggéey na mu waree ki xalaatagu la sax arrêté waajur wàcc sax defu ko ndaxte gis ngeen na la ci biir na la commune mooy gën di avancé commune mooy gën di avancé bi gën a am doole ci biir caterpillar bi nag yëg si na ba daaneel mur bi fii ngir sàppari mun a am accès biir waaye ñoo ngi koy gis nii rek ba tey gis ngeen ci biir bi mur bi daanoo gis ngeen ci biir te lakk gi yemul fii rek ah lakk gaa ngi ba ci biir biir marché bi lakk gu metti la lakk gu metti la lakk gu méttee metti metti la ñoo ngi amee fii ci piquet parc lambaay di ay di ab bërëb bu ñuy jaayee lépp lu jëm ci wàllum bant waaw ñu fiy jaay bant yu bëri sax bi moo xam tomote la moo xam armoire la moo xam bunt la moo tax lakk gi metti hendak nah, eh, idling di jebret idling tunggu kasih baca berjalan buku di Ini di batai, itu Heimat, ne?